kii moom tamit nee na dafay laaj ci diggante Moussa ak Xudar léegi nee na dafa bëggoon ay adilla yu wane ni wala ay tegtal yu wane ni Xudar yenent la waaye du wàll yu comme ni ko suuf di waxee alhamdulilah su fekkee mbokk mi ku ku jàng la maa ngi koy delloo ci téere bi ñu wax taqdisul ashxaas fil fikr suufi am na bunt spécial boo xam ne ci diggante Moussa ak Xadir ci la jëm yaakaar naa ne soriwut fanweeri page wala ëpp na ñaar fukk ala kulli xaal yoo xam ne lépp détail la bokk na ci yi gën a xadir ci boppam ak yonent la moo di yi mu def ci biir daje boobu mu daje ak Muusa yoo xam ne boroomam moo ko ko xamal yooyu munta am ci lu dul ab yonent waaye wàllu yu sëñ sa dox ba mu yàgg mu dikk fekk nit mu rey ko daal ne kii bu màggoon day def nangam ak nangam kooku wax yu rek moo ko mën a jox bu jóge suñu borom tabaraka wa taala gaalu jàmbur nga bënn ko mu suuf itam wax yu mel noonu wax yu rek moo ko mën a joxe rawatina la koy ne xadir wàlliyu la te Moussa la dajal mu doon ab yonent ci jamonoom kon day war ci moom moom mooy topp Moussa waaye du Moussa moo koy topp ndax amul benn yonent boo xam ne day dund doomu aadama nekk ci kaw suuf dajeeg moom ngeen bokk wenn xeet wa nekk rawatina xabila Moussa ñoom ñëpp ci banu Israël lañ bokk ñu nekk ci biir xeet woowu ba noppi yonent ba ñëw di topp wàlliyu wa te fekk du wàlliyu moo topp yonent loolu munta am ndax borom bi tabaraka wa taala terewul noonu ni kon ñaari yonent yi daje lañ yoo xam ne kii mursal la kii nekk nabi moom nekkul mursal kii dañ ko yónni muy Moussa alayhi salaam kii nag dañ ko joxoon xam-xam bi rek muy dox ci kaw suuf waaye mu doon ab yonent moo tax wama la mu wax ci mujj gi yëpp bi mu ko nettalee ba mu àggal daf ne wama faaltuloo am amri yi loolu lépp dégguma ko nag ci sama ndigalul bopp waaye sama borom tabaraka wa ma ko digal kon kooku mooy wane ne ko wax yi ak dalil nag yu bëree bëree bëri yuy wane ne xadir ab yonent la su delloo si téere boobu ma ko tudd yàlla mën naa dogal mu fekk loo xam ne dana ko mën a leeralal bu baax a baax